والقلم وما يسطرون السلام عليكم ورحمة الله شيخنا سامبا من calminama gardama juurade enen jafnoma eh, no feewi no gandi hannde juma eh, keɓorani mokka yi dañ jóge tuubaa ñëw fii waxtaan ak ñun ci bindum alquran waxtaan nañu ci diine waxtaan nañu ci mbokk loolu moo leen yëkkati danañu la waxtaan wax nga xam ne loolu moo tax moo leen yëkkati Serigne Sambakke mooy sub délégation bi moo ngi jógee Touba Serigne Sam dina la wax lépp e, suñu yoon bi lan moo ci ne incha allah. E, ni ko El Hadj Mouhamed e, Diamanka waxee li ñu tax a jóg mooy société bi ñuy woowee C3S c'est compagnie Serigne Seck Sénégal. moo ñu yebal ñuy liggéey liggéey bi ñuy liggéey dafa seetlu ne ci Sénégal jàngale alxuraanul karim ba gone yi di ko mokkal bu baax tisaaroon na lool foo dem daa ay foo dem rek daa ngi gis daara yi bari nañ lool foo dem itam ñi ngi mokkal bu baax àddina wi réew yi ñu dem Sénégal bokk na ci réew yi jël première ba barki moo ci mujj loolu ñun ñëpp xam nañ loolu waaye dañ gis ne bind alxuraanul karim dafa tàmbulee jeex daara yi nga xam ne ñoo ko baaxoo woon nga xam ne soo mokkalee bala nga jàngi xam-xam da ngay bindi kaamil ñaari yoon door a dem daara yooyu sax léegi defatuñ ko rawatin daara yi nga xam ne moom mosuñ ko def bi mu gisee loolu na mu gis ne comme mokkal gi bari na loolu ñu ci nekk moom alalam na ko jël def ko ci nu ñuy def ba ba ñëpp mën a bind alxuraanul karim mbindum mu rafet mbindum réew mi ci loolu ci la nekk pour ñu sawar da yi concours bu ñuy woowee yaatal mbindum alxuraan euh, musaabaqa wataniya fi rasmil quran al karim xat al parce que dafa gis ne daara joo dem benn nga kaamil boo xam ne nii Maroc lañ ko lañ ñaan kaamilu Maroc kaamilu Algérie kaamilu Tunis wala kaamil yoo xam ne ñu ngi ko moolee Makkatal Mukarrama te réew yu yëpp saa yu ndajeek Sénégal di rawante ci wàllu jàng yu ci bari Sénégal mooy jiitu kon ñu ne nag réew yi nga xamante ne bii maanaam bu dee rawante alxuraan karim ñoo leen ko dàq ci wàllu mokkal kon nag jot na Sénégal ci boppam jéem a dox ci am kaamilu Sénégal te li koy may mooy ñu fexe ba donge ni ñuy ni ñuy def ci temps bi ñuy def ci mokkal ñu defee maanaam un dixième am ci wàll ci jàng bind danañ ko man ci loolu nag ci la créé concours bi di ci def xaalis fu bari aussi itam digal ñu def ay exemplaires yi nga xam ne. ñoo njëkk a eh, jàll ci concours bi ñi ci jiitu dañoo bind ay jusu amayuta ju bind jusu tabaaraka ba mu jeex bind ko mbindu mbindu Sénégal mën nga ko ubbi nga xool waa eh, ubbil ubbil bi ubbil bi waa gisoo ko noonu bind ko mbindu Sénégal mbind mu mel mu mel nam war a mel ci riwaaya Warsh lañ ko bind antarixil azraq ci lañ ko bind mu ne nag léegi nag nañ ko place fii ba du gaaw a yàqu ñu war ci région sud séddale fii téere yi ñu jox ko dongo yi ñu di mu nekk comme modèle ñu di ci xool pour jàng caractère mbindu Sénégal nan lay mel. ni ñuy mokkalee daal suñu leen jàngalee bind mu nee ba ca kanam danañ mën a bokk ci concours yi di ci jiitu mu gis ne édition bi ñu ngi ci juróomeelu at biñ ko tàmbalee ba léegi ñu gis ne ñaari ñaari at yu njëkk yi régions yi ci régions yi féetee digg réew mi ay Jurbel daanaka saa yu ñëwee ñooy jël lépp. pour léegi nag région sud yi mën cee bokk ñu mel nañ leen beral seen concours bopp loolu tax ñu ber euh, Sédhiou Casamance euh, euh, Kolda ak gi ñu nekk ak Tamba Kédougou ak maatam dañ beral seen concours bopp bii mu ñetteelu at ñu di ko def daaw final bi ñu ngi ko defee woon Ziguinchor ki jëleen premier mi ngi jógee woon Matam deuxième bi mi ngi jógee mi ngi génne Bignona ci ci Bignona fu mu bokk Euh, ci ci ci euh, ci Sédhiou Sédhiou ki jël 3C mi ngi mi ngi bokk Ziguinchor loolu tax nag ñu ne kon concours boobu bu ñu ko defee bere leen seen concours boobu ngeen rawante ci seen biir parce que mbind mii yéen àggagu leen foofu mais nag bu ngeen rawantee faaw dana am ñu dàq a bind loolu moo tax ñu ren jii mooy ñetteelu at ñu di ko def boo ko moom dogalee final bi ñu ngi koy defee ci euh, Matam ci loolu itam dañoo def ñaari mbind mu mag boo xamante ni bi ñaari paas lañ jël bind ko mbindu mu mag boo xam ne dañ bëgg itam xale yi bu ñu leen seddalee téere yooyu ñu di ci xool mo modèle bii ñu taf ko ci daara ji donc ngay eh, di ci xool caractère mbindu senegal lu muy mel bu yàggee danañ mën a danañ mën a bind mbindu réew mi ñu bari ñu ngi bind mais model lañ amut xale dañuy bind rek eh, comme nañ nañ nañ mane mais modèle lañ amut mais bu ñu leen joxee modèle su yàggee danañ mën a bind danañ mën a bind mbind mu rafet mbindu ma mbindu Sénégal eh, lay nekk su boobaa defar kaamil ba boo xamante ne bi kaamil dañ ko tudde kaamil Sénégal société bi foofu la jëm kon daal ci tënk euh, ci ci wàllu euh, tànk yi loolu la concours bi nag euh, maanaam pour nga bokk commencé na depuis le premier octobre bi di jeex la 30 léegi da ngay bind ab page bu jekk comme na ko mënee def ci sa tur ak sa numéro téléphone jox ko bu dee bu dee fii mën nañ koo jox El Hadj Mouhamed Diamanka mi ñun danañ ci jot suñ demee ba ba finaal bi jot ku jàll danañ la woo euh, fële ca Matam lu lu ci war ci fere lépp société moom moo koy def incha allah. ma ne ma ngi leen nuyu bu baax ma ngi leen jaajëfal aussi ma ngi leen ñaanal bu baax a baax ma ne kontaan na seen ñëw wi lool taxaw ngeen ci teeru yàlla bi yàlla na leen yàlla taxaw. mu ne kontaan na si seen ñëw bi kontaan nañu ci seen ñëw bi fii eh, ngeen toog xalaat ne Kolda war na bokk ci ci ñoon ci ci ci yaatal xuraan bi eh, xamal nga lu yéen ak ñun yëpp benn la eh, def ngeen aussi lu lislaam bëgg lislaam dafa bëgg ñun ñëpp ñu nekk benn ñun ñem ñu def benn liggéey dana yokk dana yokk suñu doole dana yokk suñu sembe mu ne kontaan na ci lool lool mu ne bu soobee yàlla incha allah moom aussi danañu jéem ñu jéem lépp lu ci am dana dana xam bu moo xamee dan ngeen ko xam incha allah. Hmm. mu ne kontaan na lool mu ngi leen ñaan gën defal ko ñaan ci daara ji dañu leen ñaanal aussi ñëw ngeen ci jàmm ngeen daloo ci jàmm salaamaaleykum wa rahmatullah ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun